bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne góor gu fi bàyyi soxnaam dem tukki soxna sa njaalo ak geneen góor ba noppi saxal njaalo ko moom soxna si soxna si boppam ne diw moo ko ëmbal mu ne waaye jëkkër ji bi mu daa ngénte doomam tudd wala boog daa ngénte xale ba tudd muy laaj loolu luy àtte bi àtte bi mooy àtteem njaalo la leer na nañ ndax ndaw si moo ko saxal moo waxal boppam ne dafa njaalo su boobaa kon incha allah àtteem njaalo la doom ji doomi njaalo la. Euh, bu faatoo wërta doonu kooki ndax euh, kooku juru ko moom leer na nañ a ah, maa nag bàyyi ji ñëw ngént ak yu mel noonu loola mi ngi mi ngi mel ne mu nga fekk doomi jàmbur jekk-jekk di ko ngénte ak di ca sonn waaye lislaam daal joxu ko ci benn cër lam def lépp daal doomi jàmbur la ko defal rek waaye du doomam wallahu aalam bisimilah mu dee laajo euh, soxna su baax si muy laaj na bu duggee oto di jàng alxuraan ba agsi ci sujjoot nu muy def waa lañ la santoon mooy bu fekkee am ngam jàpp shuruur yi daje na ci yow tahaaratul xadas tahaaratul xabas istiqbaalu xibla yooyu yëpp bu daje ci yow dañoo sunnaal ci yow nga sujjoot bu fekkee dajewut nag wala mënoo ko su boobaa boo ci agsee incha allah man nga koo yéene rek wala nga junj ko jël sab jéemel lu xaw a sëgg junj ne sujjoot nga rek mu jeex sujjoot bi lu ñu sunnaal la ci sartu boo ko manee kon nag boo ko mënut da ngay bàyyi tax fekk xam xam ne loola ngant la amaa bu dee ñaareelu laaj bi ki nga xam ne julli timis waxtu wu jot da da koy fekk muy ñibbi te àggagul day day ñibbi ba àgg rek ndax timis dafa yaatu dem na ba euh, daanaka fajar li feek fajar nooduguñ noddug salaatu na la wóor ne timis jeexagut subaa kon doo sañ julli ci oto bi ndax ndax li lay may nga sañ julli ci oto bi mooy bu la wóoree ne bala nga àgg fa nga jëm fekk fajar jot waaye bu fekkee nag incha allah da nga wàcc ni ki ku dëkk ci barab di liggéey ci barab bi di dem ci barab bee kon na ngay xaar ba àgg doon fekk nga muxtaar mi jeex nga julli ci daroore yi waaye doo sañ jiital doo sañ a julli bi wallahu aalam bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alimul hakim bu seene dimbale ko sun borom ci njéema tontu laaj fi jotorot ci kaatanoon yàlla suñ borom subhanahu wa taala bu dee laaju mbokk mi mu ne góor xam ne dafa yor soxna soo xam ne du jullit ak soxna soo xam ne jullit la euh, mu ne soxna si nga xam ne li am solo ci laaj bi rek mooy soxna si xam ne du ab julit ma euh, ne ab chrétien la chrétien lay doon euh, da koo yóbbu woon seen xeetu aj yooyu man daal seen rom nga ne bu dee ci jullit ñi li ñu tuddee ñun aji màkka bu dee ci yeneen diina ci diinay chrétien yi dem googu ñu dem rom mu ne moom jëkkër ji ci moom da ko faa yóbbu woon bu fekkee loolu mbokk mi bëgg a laaj loolu dëgganut ci ab jullit mu jël ab chrétien di ko yóbbu ci eh, barab yooyu muy def caaxaan yooyu mu ñuy tudde ak jaamu yàlla loola du ak jaamu yàlla loolu du ak yàlla kon soxna si bu fekkee ne jigéen ji jawari chrétien eh, chrétien bi bu fekkee dana moom daa bëgg dem defi ak ajam mën na ko bàyyi moom na ko mën ngaa dem defi ko lépp loo xam ne diinem la damay dem église wala yu mel noon kooku moom Euh, mën na ko bàyyi mu dem comme diine boppam la yore amma moom ci boppam mu jël alal nag di ko jox naa ko demal defe nangam kooka ma ngi koy dimbale ci ak mooy yàlla su boobaa nag kooka moom du dagan mukk amma mu yor jabari chrétien yor jabari juli loolu moom amu ci solo ndax comme l'islam may na ko mu takk soxna soo xam ne chrétien la ak doonte l'islam bañ na ko lool lan taxoon l'islam daganal ko boo xoolee léegi le xew benn misaal ci laaj bi benn misaal rek ci laaj bi ak lu mel ne xale yi cay juddoo ni ñuy sànku jee ak naan nga mi naan sàngara bu ko neexee di lekk yàpp mbaam xuux loolu bo ame doom doom ci day nàmp ca yaayam yooyu yëpp euh, tax na defe naa ne bu saxaaba yi ñu ci bëri bu ñu dellusoon gis jamono ji ni nit ñi di takkee chrétien yu jigéen yi defe naa danañ ko xaraamalaat <laughs> waaye nag comme xas nañ bu ubbi buntub daganal ko te suñ borom euh, moo ko daganal kenn mënta wax ne xaraam na waaye daal la nekk ci musiba moom wax dëgg yàlla bari na ci ñoo xam ñoom xaraam na ci ñoom xulaasatul kalaam li am solo ci laaj bi daal mooy di ko dimbali nag muy defi loo xam ne daanaka sariya rafetlu ko daanaka ak mooy yàlla la seen xeetu bokkaal yooyu kooku du daggan ci jëkkër ji mu di ko defal amma bu ndaw si ne daa bëgg a dem nag kooku moom yor xaalisu boppam kooku moom faaw mënut a def lu dul bàyyi ko ndax diine boppam la yore wallahu taala alamu sawaaba bu dee ñaareelu laaj mbokk mi mu ne day jàng wakaana xaqan lu bari am ku ne ko wakaana xaqan di ci jàng lu bari baaxut waaw na laaj fu mu ko teg rek lool moom moo gën a yomb na ko laaj ba xam li nga wax ndax sëñ Tuubaa ko wax wala foo ko teg rek incha allah bu fekkee ne waxul jenn wax lu jenn wax ju leer nag te yaakaaruma ne dana ko ko wax na def la muy def rek te yem ca te bañ koo déglu wallahu a'lam bisimilah bu laajo soxna si muy laaj maykëb maykëb nag soxna si koy laaj ni mu ko leer la xeetu crayon la maanaam xeetu lu jigéen ñi diw seen bët yi wala yu ko nuru waaw ah, bu fekkee lu ñuy diw dong la nga ne moom da taq nga ne tey jii boo sëlmu woon boo bëggee jàpp man ngaa sëlmu mu dañ te loola tamit du leen yàqal dara ci ak jaamu yàlla incha allahu rabbi su boobaa loola dara nekku ci lépp loo xam jigéen ñi dañ koy taaroo waaye lu ñuy diw rek la ngir mu rafet nga ne bu ñuy jàpp dañ koy raxas rek mu daal dañ su boobaa loola moom dagan na wallahu taala alamu sawaaba bu fekkee loolu mooy maykab daal ci ni kii laaj ni mu laajee su boobaa daal lépp lu ñuy diw roosa yeek la ñuy def seen bët yeeg nga xam ne wàllu rafetal la boo doon jàpp ñëw raxas ko mu dañ incha allahu rabbi loola dagan na wallahu aalamu bisimilah bu fekkee laaju mbokk mi mu ne koo xam ne faate da cee am benn aaya boo xam ne da ko jàng ñaari yoon kooku incha allah day sujjoot baada salaam dafa mel ne daa yokk bu dee ki nga xam ne nag daa siggi ci rukon bi war a wax sami allahu liman hamida mu ne allahu akbar ñaari wax am na ci am na ñu ne dañuy jàpp ne daa boole yokk ak wàññi ndax bàyyi na sami allahu liman hamida yokk na fa allahu akbar ku ci amut am ñu ne déedéet loola daal daal bokk ci jinsu salaat subaa kon sujjoot du ko war wax ji gën a nag mooy kooko daal benn sujjoot du ko war wallahu aalamu bisimilah bu fekkee laaju mbokk mi mu ne ko takk soxna ba wéeteeg moom te joxu ko ak can wa dañuy xool ba xam ndax maanaam nu mu ko takkee woon lu xew lu xew ba loola am dafa njaalo ndax dafa takk ndax doon na ko lebal ma can gi wala lu xew xam nga loolu lépp leeroo ci laaj bi waaye mbokk bi lim laaj mooy ku takk soxna kon mel na ne sëy bi fas nañ ko bu fekkee sart yëpp daje na xëy na can nga da ko koo jot jox wala mu ne dinaa ko ko jox jotu ko koo jox wala mu ne ko lebal ma ko lu mën a doon lool incha allah wér na euh, sëy bi wér na wala kulli xaal lu yàgg-yàgg na ko ko jox li ñuy bañ daal mooy takk soxna ñu te fekk ak can da caa ëmut complètement bu ci amul moom sëy booba du baax du wér ndax sart ba day dañ amaa li ñu tëdd nikaax tafwiid nga xam ne day denc soxna se te du joxe gun ab can wala du ko tuddal genn can loolu dañoo sib rek nga joteeg moom waaye bu xasee ba joteeg moom it loola du tee soxnaam la sëy ba wér na incha allah lu yàgg-yàgg rek na ko jox can gi li ñu bañ daal mooy dàq can gi nga xam ne dañ naan sëñ bi can amu ci ne jigéen gi jigéen gi dana la may naa la nga takk mata du am ak can loola moom sëñu ko ndax can dajee am xaaj boo xam ne e suñ borom la am ci côté boo xam ne jigéen jee ko moom lu bon bon rubu dinaar bi moom mënta ñàkk la ca tegu nag mën na la koo jéggal kon nag bu fekkee day joxagu ko waaye lu yàgg-yàgg dana ko jox su boobaa loola na wallahu aalam bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne bu dee danga nga dem ca jàkka ja fekk ñu nodd nodduk salaatu nodduk salaatu buñ ko waxee mooy nodd gi ñuy waxee as-salaatu xayrum min na nawm mu ne ndax da ngaa war a def ñaari rakka jublu ci tahiyatul masjidi doo ko jóg julli ñaari rakka jublu ci ñaari rakkay fajar doo ko xaar julli suba gi wala boog danga ngaa war a rek def ñaari rakkay fajar mu jeex incha allah euh, ñaari wax yëpp am na ci wax wax ji yoonu Maalik di sukkandikoo nag mooy ñaari rakkay fajar rek ngay def mu yóbbaale ñaari rakkay tahiyatul masjid yi loolu moo nekk ci Muxtasar Seexul Xalil euh, wa naabat la wax xani tahiya kon boo demee ci jàkka ja yenn ñaari rakk dong ngay julli te ñaari rakk yooyu ñaari rakk yi fajar nga ci yéene waaye day yóbbaale tahiyatul masjidi nga après nga toog xaar ñu li xaam teewul nag am na ñoo xam ne ci yoonu Maalik nee nañ ah mën ngaa def noona mën julli ñaar rakka jublu ci tahiyatul masjid doo ko def euh, ñaar rakka fajar waaye la ñuy sukkandikoo ci yoonu Maalik nag mooy benn ñaari rakk rek ngay def toog xaar amma bu dee da ngaa dugg fekk nodduguñ noddug salaatu kooka moom ñaar rakka fajar judagut kooka moom da ngay def tahiyatul masjid daal di toog wala naafila goo bëgg a naafila buñ noddee fajar nga doo ko julli fajar ndax fajar moom juddugut ba nga koy julli faaw tahiyatul masjid dong ngay def toog xaar wallahu a'lam bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne dafa am ñuy wax ne yàlla daa wax ne sa borom subhanahu wa taala dee leen ma tooñ di ma baalu ñooñu nag sukkandiku ca di def ay bakkaar te ñoo ko tey ngir ne yàlla moo ne nañ koy tooñ di ko baalu awalan mooy yàlla waxut loolu loola moom dëgg yàlla wax ju juuyog dëgg la wala boog nañ la wax fu ko yàlla wax mu la boo ko déggatee rek ne leen fu ko yàlla wax loola wérut inna allaha laa ya'muru bil fahsha yàlla du digle lu bon kon yàlla du wax naan yàlla nu muy euh, nu muy teree lu bon di ko digle loolu xel nangu na ko téere yonent bi sallallahu a wasallam mu andi ko fi muy jàngale bu leen njaaloo leen def bàkkaar bu leen def nangam loolu leerut jël yenn bàkkaar yi mu ne bàkkaar yi day yóbbu nit sawar kon nu mu wëlbatikoo naan def leen bàkkaar yi loolu mën naa nekk man une chose et son contraire est-ce que mën naa nekk kon suñu borom ni muy diglee maanu ba naa la demal sàcc nu muy diglee njaalo ba naa la demal njaaro te baalu ma loolu nu ko xel na ko nu muy diglee jaamu yàlla ba naa la bul jaamu yàlla boo noppee ñëwal baaloo ma kon wax jooju moom waxi seytaane la waxi lu kenn xamut waaye du bokkul ci waxi suñu borom subhaanahu wa taala duur ba duur jeex nag di duural suñu borom fa man azlamu mimman iftara ala llahi kasiban suñu borom nee na ñi dëgër fit bari nañ waaye ki gën a dëgër fit mooy ki may sosal aw fen wu ne weng nag mooy nee na dee leen moytoon la ko wax fu ko suñ borom wax bàkkaar benn ci am muy def bàkkaar incha allahu rabbi mu di lu la rëcc wala muy loola seytaane man waaye nag damay def bàkkaar te fekk maa ko tey ñu ne déet waaye nga ne yàlla ma ko digal kooku moom daanaka xaw weddi yàlla lay nurool ndax suñ borom bu fekkee dafa inna allaha laa ya'muru bil fahsha suñ borom ne du ma fekk dara lu bon lu aay maanaam dama koy digle kon nag ku wëlbatiku ne yàlla da koy digle weddi nga weddi nga yàlla kon déedéet dañoo topp seen bakkan ak soytaane man leen da ci nit ñoo xam ne bu ñuy mooy yàlla dañuy mooy yàlla fekk xam nañ ne dañoo mooy yàlla loolu de bon na lool waaye nag moo tax ne ku mooy yàlla ba noppi wëlbatiku mooy yàlla ga mu di ko rafetalaat moo tax ne daa ne bu ñuy mooy yàlla du ñu yem ca ga dañuy mooy ba noppi nag seytaane rafetal leen mooy ga wa zayyana lahum seytaanu amaluhum dañuy def bakaar ba noppi nag au lieu ñu tiit jàpp ne def nañ bàkkaar waaye dañuy def ne bàkkaar bi ñu def noonu la ma ne seytaane moo leen di tawilal dara indil leen jeen wax seen boppi ñu di ñu di ko rafetal ca dëgg-dëgg loola taxu ñu dem mooy yàlla déedéet sukkandikuñ ca de naka dañoo bëgg mooy yàlla waaye comme bëgg nañu aw lay bëgg fuñ dëgëral seytaane dimbale leen xawale na jël dara rafetal leen seen xel ñu sukkandiku ca loola waaye ca dëgg-dëgg nag mooy yàlla dong lañ bëgg def xam nga loolu ay caaxaan la suñu borom ku naan day déglu ak mooy yàlla kooku moom li ñu tuddee alxabawatu ak ndof euh, akuk bew ak seytaane jekku la mënta paase loola wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaju mbokk mi xam naa daa seetlu laaj bi mm. wala bokk euh, man loolu xawma lim bëgg a laaj mu ne jigéen joo xam ne dafa jël baaraamam di ko dugal ci ab sawukaayam maanaam mel na ku ciy fo ba gis mbaax loolu nag la comprendre euh, gis baax moom ajuul jël sa baaraam dugal ko sa sawukaay euh, gis baax baax moom deret la jigéen na ci jigéen ñoo xam ne yàllaa koy dogal loolu ajuut muul juwal ci baaraama wala mu bañ ko ca dugal comme comprendre ma laaj bi ko koy tegal foofu rek xëy mu laaj ko yeneen borom xam-xam wala bu fekkee daa jum mu beneen jotaay ñëwee mu leeral ne daa juumoon amma bu dee euh, focci euh, kuy focci awaraam ba gis bànneex loolu moom dafa xaraam bu dee masturbation lañ koy tuddee muy góor muy jigéen kooku moom alxuraan dana fa man ibtaxa wara dalika fa ulaika humul aadun nit ki ba da ngay am soxna jote ak moom wala jamonoy jaam ya nga am sam jaam jote moom amaa nag di wute beneen góor di focc awaraam wala jigéen di ci wut bànneex ñaar yëpp dafa xaraam wallahu aalam bisimilah bu fekkee laaju mbokk mi ci tegu leer leerlu ki nga xam ne day sotti ndox fu mu toll xëy na tuur ndox la ci jublu ah, kuy laaj moom na la xolu leer rek mën naa mën naa wax saw mën naa am saw mu leer nañ ndax ci wàllu diina la ñuy wax kon bu fekkee ne ndox mi muy wax ne da koy sotti ay tuur ndox la kon daal koo xam mu toll ay sam saw day génne ci moom ndax dana julli waaw day julli day jullee ni mu manee donte day julli saw ma di génn sax incha allah rabbi day jàpp bu saw ma di bu saw ma di génn na continuer dem julli buy julli muy génn na continuer dem julli ci waaye nag ñàkk julli nag moom du ko sañ faaw day julli rek ko lay génn mu xam ne lii ana mu feebar la loolu du yàq dara ci julli ga wallahu aalamu bisimilah bu dee laaju mbokk mi muy wax booy jàng téere xam-xam yi dana bokk ci yi ñuy ci wàllu fase mooy xabluki ala xaaribiki xabluki ala moom boo ko firee daal mooy euh, maanaa sa mbir daal mi ngi sa loxo loolu baatu arab la arab yi ñoo noo seen xeeti waxin la woon mu ne ndax baat boobu ko ko waxoon euh, ko ko waxoon sa soxna maanaam ko wax ku doon fa sa soxnaam naan ko xabluki ala xaaribiki ndax dañ koy tollooleeg may naa la sa baat wala nuñ koy jàppee waaw wàllu fase kenn du jël baatu arab bi nga di ci sukkandiku ci wolof bi baatu arab dañ koy bàyyee arab yi ñun olof nag ñu xool baat yi ñuy fase ñu jël baat yooyu di ci fase incha allah kon ab olof bu fekkoon daa fase eh, soxnaam ne ko xablika xala xaaribiki bu fekkee xam na lim ci jublu moom ne lam ci jublu mooy daa bëgg a fase soxnaam ñetti fase ndax loolu ñetti fase lañ ko daa eh, lañ ko daa jàppe bu fekkee moom xam na loolu te yéene na ko ci kon ñu jàppal ko loola waaye bu fekkee xamul sax lu lu baat bi tekki kon dañ jul jàpp sax ne fase na day jàpp ne daa wax lu mu xamut kon baat yi kenn du jël baatu arab bee nga indi ko ci olof yi naan baat bii daa tolloog bee déedéet baati arab yi si aaday arab la nañ ko bàyyi arab yi su ko defee ñun ñu xool nag bépp baat boo xam ne bu ko olof waxee ñu xam ne lii fase la baat boobu ñu jàppee ko fase bu ko waxee ñu jàpp ne ñetti fase la bu ko olof waxee ñu jàpp ne ñetti fase la waaye nag deesul jël baat yi nga fekk ci téere yi doo ko utiliser ci réew ma nga nekk ndax aada yi dafa bokkut te fase day topp wàllu aada kon ku ne eh, soxna may naa la sa baat day jàpp ne da koo fase benn yoon lu dul nag mu ne ñetti yoon laa ci yéene wallahu aalam